nekk lu jafe ci Sénégal fii ci Kaolack liggéey nekk lu jafe ci ndaw ñi yeewoo ci Saloum mbir mi nag tax ay ndaw ñu bëri dugg ci ay métier yu ci mel ni lëtt ak defar bopp njënd ak njaay liggéey ci ay restaurant ak dawal Jakarta bi ñu gën a xam fii ci Kaolack ngir mën a am xëy waaye tam wutu seeni waajur ci yorum kër ndaw bi ñu fekk ci marché central du Kaolack mu ngi jiite benn équipe bu fukki nit ak ñaar Abdoulaye Sow lay wuyoo ñu gën koo xamee ci laay make moom mu ngi gis boppam bu baax ci bi terrain boobu dama see fier question la ñaata emploi sax parce que man dama considéré ne emploi la si muy bàyyi gan xam nga a bi muy fellu laay waaye tam di sàkku ci kilifa nguur yi ñu gën a darajal seen métier bi nga xam ne ci la dund gis suñu bopp bu baax ñu liggéey ay xale lañu ñëpp ay jeunes lañu sept heures xëy vingt heures la wàcc amoon ay place yu baax vraiment dinañu neex lool ci beneen wàll benn salon de massage ñu fekk fa ñeenti xale yu jigéen ñoom ñépp ñu embauché leen ñu am seeni saleer yoo xam ne naam taxu koo deme noonu waaye xale yu jigéen yi di xam le ne seen liggéey bi fa nekk lu ñu bëgg seen xol suñu métier bi nekk na métier boo xamante ne dafa noobu bëgg yëpp am man su laa jël ñu ngi ciy sant yàlla parce que ñu ngi ciy am loo xamante ne si ñu ngi ciy faj suñu soxla ñaanuñu kenn soxla wuñu yëpp kenn loolu suñu xëyee suba ñu ngi xëy suba di liggéey li suñu liggéey bi ak nguur gi yéen ngeen jàppale ñu ñu xam ne si ne ñun ay xale lañ ay jigéen lañ te aussi dañoo nekk si yoon bëgg réussir suñu laay beneen métier ngi nii boobu tam ay xale yu bëri ñooy daw wutali foofu ngir mën a am liggéey muy njënd ak njaay waa jii di ndongo jaañ ci lii la jàpp ngir mën a faj ay soxlaam waaw comme dañoo bëgg a jàppale suñu yaay bëgguñu taxawaalu pour entreprendre xam nga ñu ñëpp mënuñ toog ci bureau yi jàng nañu ba am dem niveau BFM defee nañ ay formation jàllul dugg nañ ci gaal yi moom mooy après ñu ne nañ xool ñun ci génnee mais soxla nañ ko ñu jàppale trop trop trop tamit parce que fii nii da ngay lal bëgg a dóor ñu fekk la fi di la dàqe fii ci Kaolack nag dawalum Jakarta mooy li fi gën a fës li xale yi jàpp ne ci la ñu mën a amee xëy waaye ay yeneen i métier xale yi jublu nañ ci ngir mën a am seen liggéey waaye tam ci mën a rëcc ñàkkum xëy bi lëmbee réew mi